Qu'est-ce qu'il y na nga jóg jógal monsieur je ne veux pas de problème s'il te plaît je ne veux pas de problème ok eh duma sa morom fii du pour yow fii laa la luye fii maa ko moom. monsieur di ak sa tànk. monsieur la fois passée je t'ai dit que ici je fais ce que je peux je ce que je veux je paye la loyer j'ai le droit de m'asseoir là où je veux je ne veux pas de problème. je ne vois pas que ça soit la dernière fois. parce que sama sama léegi la jóge hôpital lan la. eh je Fatima ne mon mari fii nga toog nee na nga jóg nga dugg ci biir moom dafa feebar dafa bëgg a dalu. jamais ah madame faut parler avec ton mari. eh demal rek kii sama ma la lan eh, la yow écoute-moi bien ma tàccu la lan eh, eh, la madame amul écoute-moi kii nee na ma la waaye eh soo ma buuma nga gis si la eh si kii nee na ko eh écoute-moi eh bu ma bu ma laate dégg c'est ce que je la wax kii nee na ma bëggoon nekk fi ngay wax c'est la dernière fois eh amul dernière fois ma sax rek gisoo ni muy def léegi ah dafa yaakaar ne mu ko ragal wala mu gis moom ma toll nii ma bugg a doon. gisoo ni mu def léegi ala. dugg fi gan fee wax naa de ci lekk. la laay soo lay dundee ak àcc ki. yo da lay rey de. ah man dama ko ragal da nga yaakaar mu ko ragal ragaluma ko de. ragaloo soo génnee fi nga fekk ma fi da nga yaakaar ne ma la ragal. ragaluma la na fi nga may fekk. ay dëpp la fekk ma suñu ko ba pare def ma. wax ji la lay fa weer bi. da lay rey de li nga génne da gis ma rek man ndaw rek nga bugg a doon ma a nga yaakaar ne ma moom. yow mu loolu ñag ñag bi ah ñaw ate ah yow xuloo bàyyi wong moom atte ah, la nga def doo noppi ñag baa ngi au moins nga lekk hmm? utal ma lu ma dugal sama biir bi ba pare dogal naan sama garab bi te indi ma ko si biir. waaw indi ko si biir moo ëpp sutura si su ma fekk ma toog si di lekk lu may wax. d'accord ma yónni ko dañ ñoo fekk ci corona bu métti dëkk bi métti bañ quarantaine ñëpp confirmé ñëpp na la nit di yóbbu sukkur koor xanaa bala ngaa maa laaj sukkur koor nga may ma ma wér xam nga ne mag. du yoroon ordonnance am fii. moo tax ma wax loolu. lu ma tere tere te nga gis mbuusum gabar garab yii nga war a xam ne man wéru ma. waaw tamit il faut que ma yónni leen dara ma def dara bi tax ma laaj tamit du dara. nga ne leen sama dafa feebar. ñu dàqoon ne ni. bu ma bu ma saaga de. baal bu ñuy wax maak yow nga fi làkk ay pël del wax olof. dama lay wax dégg kay. ah bon damaa nga jox ma ma yónni leen. loolu laa wax te yaa ngi yoon yónni nga sa mbokk yi. waaw ah, man sama mbokk yi moom ñooñu ni toog ba léegi benn paase yónni ma leen dara bii tamit ma toog ma bañ a yónni. dañ toog ma feebar te bu ma wóorul ni. ba may gas teen sa àll ba. bu ma wóorul ni bu mu la indee fii. ni ngay mel ah kon fi nga nekk baaxul. fi nga nekk baaxul. suukar koor kese ɗum tan mbimam wiyanma goɗɗum ɗum kam noddinami kam haalis noddinami ko boni ɗum ɗum kay bonani ha mi yonnira mi yonnira suga ko lo ceerno e wa yaangini yonninga sa famille ba pare man sama famille day toog deux jours mbangini mbangini buga lijjante mënuma ko lijjante jox moma yonnile loolu rek laa la waxuma dara masamba dara ɗolama jamma e ñoroma e noddinami tattaɓe ke ɗum kam boni ɗum alhamdulillah ani tan hayga ani ani ko famille yanko ani topoto sa famille chaque jour sa bëri mënoo ko toppatoo loolu mooy lan. teel wax loolu moom da nga si waxul wax. mën ma lay toppatoo di toppatoo sa famille. sama famille ne da nga ko war a yónni ba seen jàpp la ñu bokk. mënu ma leen di yónni de. Nijaay Nijaay la mu bàjji di leen laa mel doo ko bàyyi mu wax. mais nijaay yow kon ak li mu fi nekk dangay wóor dangay wóor li ma bëgg a rey yaa ngi nii tey wóoroo. li moom chaque jour ci kaw nga may fekk mu toog kon tey bu ma wàccee ci suuf fii. bay lekk war ngaa xam ne damaa feebar sama garab a ngi nii ñàkkeew ma noonu faaja damaa dëkk ak fi samay nawle yow sama nawle nga keneen ak keneen sama nawle boole ma fekkoon ma toog fii di lekk sigitu loole ni wax kon nag boo feebaree waaw kon boo feebaree war ngaa mën a tëju sa biir néeg lekk bu suur naan ba man kenn bañ la teg bët ku dul yow ak yàlla sunu borom xanaa ak yow mii ñetteel ma tey jii coow boo ko nettaliwul nit du ko xam dangay ngay dajeeg jigéen ci ci mbedd muy lekk nga xam ne kii am na lu ko dal mais bu njëkkoon jigéen day feebar feebaru jigéen tëju ci biir néegam lekk bu suur naan ba man di nekk ak yow ci biir kër gi defaral ndogu defaral la lépp xam kañ ngay xamee ne kii am na bor bu koor di waaj a ñëwaat muy fay ngay xam ne kii nekkate amoon na lu gàllankoor moom lañ fi fekk kon ba tax na boo waruleen tëju sa biir néeg nga def la ngay def ci sutura ndax lépp ci sutura borom tuub loolu dong la. waaw xam nga ma woon noonu de nijaay. xam ko tooy. waaw ma jël ceeb. jëlal rek. waaw. xiif kat nijaay. fi nga dëkk xaw ma foo demoon ak sa sax. nekk di taawon bi di di rek. yow looy lijjanti ak la nga mën a lijjanti. ah